waaw lu gàtt la lu gudd la lu gàtt la ndax bàyyi loo ci wax doy na lu gudd la ndax bàyyi loo ci wax mu des leneen ci tënk mu ngi ñëw ci àdduna ci atum 1900 mu ngi woote faydu ci atum 1929 1930 mu ngi njëkk dem màkk ci atum 1937 waaye juróom bu jigéen mooy maam Astou Diankha waaye juróom bu góor mooy maam El Hadj Abdoulaye Niass mu ngi gane àdduna ci dëkk bu ñu wax Taïba Niassène ab commune la ci département bu ñëw rek Dirib bokkee ci région bu Kaolack boo doon natt diggante route nationale bi jógee ko Dingaraay gi nga xam ne yoonoo faral jaar jëm bi ak Taïba Niassène onze kilomètres la dëkk boobu la Cheikhul Islam gane àdduna nit la ku yàlla teelu ubbi ci fu nekk ci àdduna bi ku amoon teggin la am teggin gi mooy suñ la wanee li bàyyi am ci taalibe ci biti ak lu mu am ci biir Sénégal dégg naa ci jamono ñu mel ni man fekkee woon ko laajoon nañ ko ko ne ko lu tax nga am taalibe yu bëri ci biti am taalibe yu may Sénégal mu ne dama fi fekk samay waajur te nit ku baax bokk na ci teggiinu xam-xam mooy nga joxe cër joxe cër mooy fii toolu bàyyi la te comme moom domb farlu la muy dem gor yi ci tool yi ci biti moo tax taalibe bàyyi boo xoolee ci biti lañu ñu ëppee ci biir réew mi ci atum deux mille vingt fi ñoom ñoo ne taalibe bàyyi ci monde bi. ñu ngi toll ci quatre cent millions de taalibe ki ko bind du jullit ñee day propagande l'islam du jullit ñu ne day du tijaan ñu ne day propagandal tarixa bi du taalibe bàyyi ñu ne faydu bi lay bëgg a propagandal dafa wax aqulaay taalaan lan lay tekki mooy tekki ne fay du tijaan yee di li bàyyi ne su woote li mu am ci membre amul benn organisation bu am récépissé légal ci àdduna bi bu am membre yu toll noonu beneen bi mooy lan leen lay tekk mooy rassemblement islamique bi gën mag ci àdduna bi yàlla mu ngi ko jagleel Baye Niass pèlerinage à la Mecque di aju Makka trois millions de visa la Arabie Saoudite di séddale ci réew jullit yëpp Sénégal am ci kotaam comme yeneen réew yi waaye gàmmu Nigéria nag sept million de personnes ñooy daje ci benn état màggal cheikhul islam lu tax Baye day gàmm ba bis bu delesee mu gàmmuwaat yàlla di ko fay bu ñu ko gàmmalee juddoom muy gàmmu Taïba bis bu dellu si waatee muy gàmmu Nigéria lu tax yàlla moo wàcc alquran ne man jaa bil hasana falahu hasrun amsaluha man boo ma defalee benn bu bees dama la koy fay bu baax dama koy multiplier mu nekk par dix ñu ko doon tënk daal da nga naan bàyyi moo mujj juddu mujj woote ëppi ndongo moo am 400 millions de talibé ci monde bi. non mbiri ndaw la sax faydu mbiri ndaw ñi la dëkk bii tey mi ngi Medina Baye boo duggoon léegi nga laaj ko Cheikh Google na la wax na mooy dëkk bi gën a siiw ci àdduna bi ah, xam nga dañuy wax ne dangay ngay xam réew xam région xam département xam commune soo ko xam quartier Medina Baye na contraire bi la am danga nga gis ku nekk ci àdduna bi xam Medina Baye xamul Kaolack xamul Sénégal xamul Afrique te ki ko sanc bi mu koy sanc vingt neuf ans la am léegi nañu wax man ak yow ak ñu ñuy déglu su suñu bi ñu am vingt neuf ans luñ defal l'islam luñ defal suñu societé baa na si mi sanc dëkk bi gën a siiw ci monde bi bi muy am vingt neuf ans la sanc Medina Baye ndax mu ngi ñëw ci àdduna mille neuf cent sanc Medina Baye mille neuf cent vingt neuf pèlerinage am à la Mecque 1937 léegi da ngay gis na kon li mu wootee mbiri ndaw ñi la parce que ndaw la ko yàlla dénkoon ba muy am vingt ans la taalif premier téere ñun suñu at ci 21 ans mënuñ bind benn xët bu fees te gis nga ñaar fukki at ak benn la am taalif téere ñu koy wax rawul ëdëb téere ba ren ji am na téeméeri at ak ñaar ba léegi kenn génneegu ci benn erreur kon faydu mbiri ndaw ñi la moo tax boo ko xoolee ndaw ñi ñooy dem jëm ci xam lu tax ndaw ñi ñooy ëllëg te faydu lii jëm ëllëg la Baye Niass daf ne woon moom rek laa gis nit koo xam ne woote na dem au-delà objectif am nit ñi bu ñu wootee dañ naan sumay tàmbali lii de son objectif mooy lii par exemple nga ne faydu de mbébétam mooy fu tarixa jaan yegg dina lislaam yegg fa faydu tijaan yi dana fa yegg te da ngay gis nit ku ñëw ñu tuubal ko mu dugg ci lislaam jox ko wirde mu dugg ci tarixa bi mu soog a dugg ci fay faydu xam yàlla gis nga bàyyi na si rek mooy nit koo xam ne mbébétam dem na ba am lu kawe njortoon yàggale na mission yonent yàlla Muhammad ba léegi mu ngi yokk diine l'islam yàggale na mission Cheikh Tidiane ba léegi tarixa bi nit ñaa ngi yokk jaar dugg ci moom waaye mu ngi liggéey li ñu ko dénk muy faydu Tidiane ya faydu bi kon du ndaw yoo ko utal si mais faydu mbiri ndaw ñi la. ñu ngi ciy def suñu kéem kattan waaye dañoo am benn problème problème bi ñu am mooy ñëpp dañu am mbooloo mu ndaw organiser ko mbooloo mi di yokk ku ñëw rek ñii la fii nga bokk fii nga bokk ñu ne dañoo am mbooloo mu bëri ne dañ ko bëgg organiser. mbooloo organiser ko dafay jafe mbooloo dañ koy encadrer ci encadrement boobu nag la nekk moo indi ansaaru diin mooy indi fond Medina Baye mooy indi euh, COMAF du comité d'organisation manifestation activité de la fayda mooy indi mooy indi moo indi luñ ci bëgg mooy encadrer mbooloo mi nga xam ne am nañu ko ba noppi naka la ñuy def ba tënku ci objectif yi nga xam ne am nañ ko xam nga soo koy xool kenn nit rek muy Serigne Mamou Niass 2010 2011 moo dem ba Suède jënd tente indi ko ñu di ci gàmmu. ren jógee nañ ci loolu ñu ngi am tente boo xam ne taalibe baay yëpp ku nekk ci dugal ñaar dërëmam ak dërëmam ci ndimbalal sëriñ bi. encadrement bi moo ñu ko may du organisation de loolu encadrement la ndax mbooloo boo ko bëggee organiser perturbation nga yokk waaye mbooloo dañ koy encadrer ci encadrement boobu nag la ñu ne moo indi organisation yi nga gis te euh, ci kanam. dina gën a xam ne ñu ngi ci mbébét yi ñu ngi ci yitte yi yàlla dama ñu am xalifa boo xam ne ku xam modernisation la ku xam jamono la boo demee ci tante bi ñu war a gàmmoo rek ñu ne leen ñu ngi ci yoonu modernisation nga gëm ne ñii ñu ngi ci ndax li fa def wane na ko